Rewmi 24 TV dal ak jamu maître Ngagne Demba Touré fare ci parti bi di Pastef ñu bari ràññee ko mu nekk xalé waye ñu bari di sax wowe client Mbappé ndax bam ak man liggéeyam bu baax mom mi di Ngagne Demba Touré ma ngay wéy di def appel di lancer peuple sénégalais di len xamal na rek suba ak jamu dal parce que yene nañu def ben appel bo xamé né dañu bëgg Sénégal yépp kenn ku nekk rek fa nga dëkk talé bala gëna jëgé rek nga taxaw ci kaw talé bobu ñu doxu dal di def ab marché tudé ko nak fees fépp ci mbedd yi ndakaaru njaay fees fees sénégal moom mii di maître dem Demba Touré moom moo xam la yooye la kaddu ngir ñu wax ne Macky Sall rek li nga bëgg a def ni Ousmane Sonko ak parti pasteur bi nga bëgg a tas nii sénégalais yi d'accorduñ ci benn yoon waaye ginnaaw suba bu ko defee rek ñu daal di nag xool nag naka lay Macky Sall di réagi ñu daal di delloo wata buum ca mboy mboy ga kooku mooy dem Demba Touré kon daal moom ma ngay xam ne suba rek opération fees fépp ci sénégal ngir rek libération Ousmane Sonko ak ñu jàmmal parti bi di Pastef kooku di Ngagne dem Touré Touré moom woote loolu fii ñuy wax ak yéen.